قد جاء قلبي تذكر الفنا fàttaliku bis boobee nga xam ni Cheikh Mouhamadou Moustapha jëli na sang bu tedd ba Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Ndiarème indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba. te tubaab tegu ko bis bu màgg tax waa daara saalixiina jukki ay xasida daaj ko ay daaj yu mucc ayib bokk na ci yooyee xasida waqul rabbi anzil ni nu daj ko daaj waa kër sëriñ Masamba Mbàkke bi خد خاجة داجو دار صالحين قد هاج قلبي تسكر أجيباتي مواهب النافخ داجو سرين مهيب جاي بسم الإله ينمو بلا hai jasa ka rabbul adata fa khalmuna sifasudori diawdori badrul kudori bani diai raditun anil mawla nu daaj ko daaju sëriñ sariw càmm raditu anil mawla سيندي الله نداج كو داجو سرين شخلو مدال الخبير نداج كداجو دارو مغتي مدال الخبير fa kulli washrabi daaju sëriñ Mohamed Fall وعيد اهدي جميعا الصراط المستقيم داجو دار الصالحين اهدي جميعا الصراط المستقيم وبزي كلنا بلا اهدي جميعا الصراط المستقيم وبزي كلنا بلا سقيم mbokk yi yéen taalibe Serigne tubaay yi yéen ñi ngeen xam ne mënu leen toog te dégguwu leen xasida yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom moo ko bind xam leen ne album bi dina génn ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ci atum 2020 bii nu dëgmal clé yooyee ku ko bëgg am Touba da ngay dem ci Serigne Saliou Seck wala sax nga jot ko ci 77 700 45 09 Touba ca marché Ocass ngir mëna ak Serigne Khadim Cissé ambassadeur ci numéro B 76 383 11 52 wala Serigne Modou 77 793 21 16. ci Dakarou, di nga mëna Serigne Saliou Moussa 77 613 58 02 ci Joal soxna Amina Tourfatou

39 46 jàng xasida Serigne Touba yi fas ci liggéeyal Serigne Touba.